naka na nga instant bi prêt pour la retour. waaw pare naa de instant yi nii waaw. le retour de Sam Morolan. waaw lool instant yi lool la nit ñi di xaar si man. la ñuy war ki nga war a bëreel instant bi ki war a mën a ñëw jël avance bi jàkkaarloog Sam Morolan kan la. non instant yi nii kan la war a doon instant yi man maay laaj samay moroom si laam ji man xam naa ko de. Ayo yow sax xam nga ko yow. man xam naa ñi nga war a bëreel mais tey dama ñëw samp samay matériel jàkkaarloog yow di samp samay laaj yow yaay tontu kan moo war a mën a ñëw jël avance bi jàkkaarloog sa morom. instant yii nii du ma wax ay mbër bi war a mbër bi mais ku pare rek pare naa instant yii nii. léegi da nga commencé ragal booy. non ragaluma kenn. alors mais bo yow instant yii bu ma tuddee benn tur benn turu mbër daa am instant yii dama ko teg bët. waaw mais war nga mën a teg bët ku la raw. koo xam ne moo la jiitu. wan ko mën a teg bët ne ko sama waa ji kaa ñu bëre déggoo lu ma laax man instant yi nii boo yi nii boo leen tuddee da nga leen di may coow ndax instant yi dëgg la nag instant yi bàyyi nañ ma si ginnaaw nag instant yi maa ko war a jaayante fekk ji leen waaw loolu kenn werentewu ko instant yi nii moom maa war a jaayante instant yi nii boo yi ma bàyyi si ginnaaw ñu ma duggandoo si laam samay moroom mooy loolu waaw mais yàlla baax non sant ni man booy boobu noonu nañ ma ko jox booy Mengu Mboro nañ ma jox ma bëri. Mengu Mboro bu euh, bu Bac Seras. Bac Seras booy boobu non bu ko ñemee na lekk avance. xam nga Mengu Mboro. waaye kooku xam naa ko bu baax a baax. xam nga ko bu baax a baax. xam naa ko bu baax xam nga ko ci mën a mën na bëri champion la moo ma koy laaj te dafa ñeme. non dafa ñeme moom loolu wax ju yàqu la Mengu Mboro ñeme na loolu wax ju yàqu la. waaw booy boobu laa soxla. léegi nag instant bi nañ la ko jox. booy boobu laa soxla ñu jox ma Mengu Mboro sa morolan waaw boobu la combat bi taxaw loolu làmb la ñeme nga jël avance avance Mbengue Mboro ñeme nga ko jël waaye yow ba damaa am lu may ragal rak rak bàcc seeraas boobu sax bu ñu ma ko joxoon ma jël nga naan ma caatu seeraas xaw ma lu tudd kon daal benn instant sa waa ji Mbengue Mboro sa morolan mi ngi sa kaw ak kan waaw ak ay yeneen booy ak ay yeneen booy waaw am ak ay yeneen booy yu bëri waaw sama yen non sama moroom moom bëri nañ fi moom tudd moom instant bi combat la Mbengue Mboro saa Morolon loolu combat bu logique la. la de waaw ay booy yi ni booy jaamu gën boo ko tuddee sax da nga koy may coow. caatu fora booy boo ko tuddee da nga koy. caatu fora eh, ko tuddee da koy may coow. ko coow dafa am coow naturellement. kooku ñem liggéey ba am coow. kooku ñemewul. caatu fora bi rek la moo tax moo mais kooku ñemewul bari. non non dama ne caatu fora nga naan ñemewul. waaye naka jël. Eh? naka jël kooku. ah na jëlee looy naka jël rek. damay laaj lan nga mën ci caatu foora. lu dëggul lañ dëkk. moom jàmm gën la dëkk. waaw kay waa jàmm duñ dara affaire bi fii la. affaire bi fii la. yëmbal non affaire bi fii la woon fii la woon <laughs> non non bi fii la woon parce que voilà parce que fii ay champion ñoo fi dëkkoon. jàmm gën léegi la rek waaw Siteu maa ngi koy nuyuwaale sama mbër la waaw dama koy bége waaw kooku sama champion la Baye Fall la. dama ne fee. dama la léegi loo wax ci caatu fora nga ne caatu fora na jël avance. waaw kooku noonu bu ñëwee moom baax na. Samorona lan nga mën ci caatu fora. caatu fora dama koy duma du gis ku. li ngay wax ni gëm ko. caatu dama koy duma. amuma lu mu dul gëm yow. gis nga caatu fora moromam bu ko duma daan sama làmb xam nga ni sañ-sañ mooy tax ma ñàkk sañ-sañ. sañ-sañ man sañ-sañ laay demee. sa du gars yi naan ma yow da nga war di def ndànk di indi bëre mais man dama jàpp nii rek dama la war a mun a cif jàpp rek waaw kay ma lool est-ce que mës nga gis mbër bu jàpp caatu fora si fay ko. loolu sama <laughs> ko fi. gisoo mbër bu jàpp caatu fora si fay ko gisoo ko fi. waaw boobaa man mun naa ko bu ñëwee dëggal boppam ñeme bagaar bi xanaa mu dem ba si biir delloo avance mais bu ñemee bagaar bi sul tànk ñeme jam-jam mooy loolu noonu waaw. yow yaa saa moro saa mi ngi sa kaw. Euh, on avance rek euh, yaa ngi yëmbal buuna.

caat caatu ki caatu bun caatu bun waaw kay caatu bun sama doom nday kooku moo dàkkoon bëre yam dafa mun bëre kooku kooku dafa mun bëre ba pat daf koo toj dafa toj ba pat arène bi mu dugg tegale ay victoire man si man yëmbal iya, ba mu daj kookoo fi dàq bëre mu ngi fan actuellement non instant eh, yi mu ngi Italie quoi Italie waaw dara mooy loolu on avance eh, benn instant question bu ma lay posé waat yow bokkoo ci ah lamb ji wërngal këpp kan fi <laughs> lamb ji ah man nag bu ma neexee ma ne tonnerre a fi daa ko bëri de. tonnerre waaw ndax tonnerre bu yëmbal bu bu bu bu buun. waaw a waaw. làmb ji wërngal këpp. instant yi nii waaw nii làmb ji booy seet tonnerre ma xam moom mooy samay doom moom moom si moom laay rey waaw tonnerre a fi dàq bëri top si la dajeer. non tonnerre moo fi dàq bëri n'est-ce pas. waaw léegi da may defal sa top 5 juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji tonnerre ak kan. tonnerre la dajeer. la dajeer 2 waaw ak boo yëmbal boo yëmbal champion la waaw waaw ak 12 ans 12 waaw mu des benn waaw ak man non non yow yaa ngi loos yow yaa ngi loos yow bokkoo ci yow yaa ngi loos yow tey maag yow ñoo toog yaa ngi loos jox nga ma quatre mbër joxaan ma kenn waaw tonnerre nga ma jox Lac de Guiers 2 12 ans boo yëmbal mu des waaw ñoo ñoo fi daa ko bëri. Hmm. waaw ak Jamso. Jamso Jamso bu bës koo saw. ñii ñoo daax bëri ci làmb ji euh, rakk ji bëre fit entraînement gàllaaj fan moo ci ëpp solo ci mbër fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo mais yëpp yëpp yëpp ngay wax noonu am na solo yëpp am na solo mais dama la ne ban moo ci ëpp solo xam nga waxuma la ban moo ci am solo kongo mooy lépp entraînement moo ci ëpp solo. moo ci ëpp solo. entraîné ba os. entraîné ba os contact physique loolay mbër li si des yëpp day mottali. kon yow boo gisee mbër buy entraîné da nga koy naw. yàlla xam noonu bu gisee mbër bu entraînement sax da ngay doon sama xarit même bu ñu dara bu dee maag yow ay adversaire la sax même bu mu la ko waxul bu mu la ko waxee yëpp. dama waaw dama kay naw quoi. waaw léegi yow nga war a bëri ji un jour. ñu ne la allo Sam dafa am règlement bu bees bu wàcc yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj foog nga bàyyi ci benn ñett yi ñooy dem làmb benn bi day des ban ngay bàyyi. yooyu. bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj gi ñu ne la ñett yi ñooy dem. man ma bàyyi gàllaaj yi moo nga bàyyi gàllaaj. waaw en tant que séeréer. non séeréer nga ne gàllaaj ngay bàyyi. waaw ndax man yóbbu bëre fit entraînement. waaw nga gàllaaj. waaw kon gàllaaj amul solo. am na solo am na solo de am na solo bu baax mais man favori wu ma ko. favoriser woko est ce que du est ce que du lolu mo la manqué yow yow est ce que du lolu mo sa yoon di deuguer kon li nga gëmul galaj non gëm na ko de mais comme yow li nga wax ñetti yoy non ñenti yoy wa wa galaj yobu beure fit entraînement waaw lutax mëno bay beure bi han lutax mëno bay beure bi beure bi non beure bi moy lepp yow buñ la jappé ci beure yow buñ la jappé bo dajé ku mën beure amna fum lay japp bu la yeggé bo mënul beure do dem do ci gën lutax mëno bayyi entraînement entraînement ah ñaari mbeur buñ dalante boo amul doole la ngay wàcc de. lu tax mënoo bàyyi fit bi. fit bi fit bi boo amul sañ-sañ nooy taxawee. maa laaj nga tontu kon daal gàllaaj ngay bàyyi on avance euh, raga bi nga dalee seetaan lamb ba tey <coughs> ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte combat bi la gën a marqué ci làmb ban combat la. combat bu ma gën a marqué boo xam ne bu demee noonu. maanaam boo xam ne da ko seetaan télé wala nga dem stade seetaan ko mais mu marqué la ba mënoo ko fàtte combat boo ne mënoo ko fàtte. Hmm, daf ma neex comme combat mu. neex la wala mu naqari la mais mu doon combat boo xam ne boobu nag mooy loolu. waaw am na benn combat tonnerre boo xam ne daf maa metti trop. combat tonnerre garga bi. garga mboose tonnerre. wallaay wallaay. boobu la gën a marqué ci lamb. boobu daf maa mënoo ko fàtte. sa grand dafa nekkoon ci yoon benn instant bañ ne dem na. après boobu dafa maa metti. Euh, benn instant question suivante bi dama naan euh, yow sa wàllu bopp bi nga dalee bëree mbapat ba arène ban victoire moo la gën a neex ci sa carrière. ban victoire waaw ban victoire. maak cop waaw maak cop cop booy yow dama doon bëri mbapat daf may gis sax si télé bi sax di doole ma rek xam li ma xam ka fekk yow doole ji nekk si man newu si moom. moom gëmoon ni moo la mën. dafa gëmoon ni moo mën ba si làmb ji loolu mu def. boobu mi ngi toogaale victoire avant combat bi. waaw kay jour yi ngeen bëri nga daal dañuy dox si mbedd sax muy njuub ma ànd ak samay xarit. war mu ñëw fekk mu fu may entraînement yi mooy loolu. ngeen bëri nga daan ko. mo yàgguma moom. booboo la gën a neex ci sa carrière. waaw kay mais bi nga dalee bëree ba tey mbafat ba arène ban defet moo la gën a métti ci sa carrière. defet maag seetlu bu ndaw ba tey jii digganteeg sëla bu ndaw du ma ko fàtte benn braak billaahi ba léegi nanguwuma ko sax dañ kaa jox drapeau bi rek mais nanguwuma ko mu metti lool billaahi waaw privé rak da ngay seetaan football man non lu may seetaan football nag bariwul de bëriwul non lamb rek man lamb rek lu ma lu ma xañ lamb moom ko xañ euh, mais on au moins équipe nationale Sénégal a ah, wax dëgg fa yàlla dama koy seetaan mais bëriwul de. <laughs> Ah, d'accord léegi dama lay dama lay forcer question bi limal ma 5 joueurs équipe nationale Sénégal 5 joueurs. 5 <laughs> joueurs. équipe nationale ah, Sénégal xam naa Sadio Mané de. Sadio Mané maam laa xamoon. waaw. waaw ak Diao Diao Balde. Diao Balde Keita. oui ak Ismaïla Sarr. Karambooj Karambooj ah boo yow guerrier nga li mën nga ma cinq joueurs équipe nationale Sénégal te doo seetaan football non yow guerrier nga euh, kan mooy sa joueur préféré sama joueur équipe nationale nii nii nii adduna bi nii nii adduna bi wërngal këpp joueur yëpp kan mooy sa joueur préféré waaw kii la Chris Cristiano Ronaldo waaw mooy sa joueur fii kan mooy sa waykat Sénégal mooy sa koo xam ne bu wayee nga kontaan ndongolo Ndongo Lo mu sëñ Fall waaw kay moom mi génn àdduna depuis 15 ans àdduna ñu ngi koy ñaanal yàlla suuf ba tey Ndongo Lo mooy sa waykat ba léegi aw ma waykat ku Ndongo Lo ku Ndongo Lo yow bi Ndongo Lo di gaañu boobu toloo nen Ndongo Lo bu mu gaañoo léegi mën na 15 ans waaw mais dama màgg nag di ko dégg ay wayam ma xam ne kii li muy wax njariñ la billaay wala Ndongo Lo mooy sa waykat amul wayam boo xam ne mënuma la kaa toppal waxal la ko c'est clair on avance rakk ji euh, benn instant Sénégal fii mooy sa comédien préféré